mots. Euh, j'ai envie de parler à la jeunesse. Mm-hmm. parce que jeunesse bi ñoom ñi ngi daw fu nekk di am yaakaar mais ba tey xamuñu ne que Afrique gi yëpp Sénégal lañ yaakaar mag ñi pare nañ aussi pour joxe flambeau bi ñu yore woon mais pour ñu joxe ko il faut que ndaw yi ñu xam ñaari affaire benn bi il faut ñu xam flambeau bi ñu leen bëgg a jox lan la réellement mais aussi il faut ñu dalal xelu mag ñi. ba pare wax ne Sénégal mag du ko defar ndaw du ko defar xale du ko defar mag du ko defar jigéen du ko defar góor du ko defar mais ñun ñëpp ñoo koy defar ensemble loolu moo